mbokk yi ñu teewlu ci Leral TV ak Leral.net daleen ak jàmm ci xibaaru bés bi ñu fas ne ko doore nag ak tiis gu dal ci àllu làmb di génnuk àdduna ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 1 mu daal di làqu niki démb ci dimanche bi xibaar nag suñu natango yu Lutte TV ñoo ñu ko xamal mu daal di noppalu gannaaw ba ko feebar bu yàgg daal di tëralee juróom weer mu daal di koy tëdd ci lal moom Balla Gaye 1 nag mu doon naqar lu ñàkk a taxawu bi nga xamante ne ñi siq làmb fii ci Sénégal def nañ ko ko gisul kenn ku ko taxawu ci feebaram boobu rawatina ki nga xamante nag moom mooy turandoom ba di bala Gaye 2 ñu daal di koy jébbal boromam nag indi ki démb fa fële ca sëg yu yoof képp koo xamante ne nag da nga yëngatu ci wàllum sport rawatina lii di làmb teewe nga boobu bés ay nit yu bëri la ñu nemmeeku foofe nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Cambérène loolee tax sax ba ñuy fàttaliku tolluwaayu ki nga xamante ne nag moo fi jógee di Balla Gaye 1 rédaction bu leeral TV ak leeral point net yi sama kàddu nag ñu koy jébbal seenu jaal famille Balla Gaye 1 rawatina nag ñëpp ñi nga xamante ne dañu bokk ci wàllu làmb fii ci Sénégal ab terroriste nag la ñu teg loxo fële ca diwaanu Touba mu nekk ko xamante ne gannaaw ba ñii di àttekat yi di ko déglu dafa xamle ni benn doomu Libi moo ko daal def ay koppar yu bëri ngir mu amal ab attentat fii ci Sénégal ay kàddoom nag tiital lool ñi nga xamante ne ñoom ñooy àttekat yi nee nag fii ci Sénégal dañu war a jël lépp loo xamante ne dafay laïcité sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy charia ay yoon yu bëri nag doomu libi bi dik ko ay koppar amal bi li waaye nag dafa daa dee lànk ca gannaaw ba nag la daa dee nangu muy xam ne nag boobee waaye mu ngi koy xamal fii ci Sénégal ñii di jeunes yi dañu ragal lool loolee tax sax ba mu ñëw ci moom mu ngi xamle fële ca diwaanu libi nag dañuy dugg ci ay restaurant wala sax ay discothèque ñoom ak seen yeneeni frère di faat ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci boobee béréb nit ñi di wadd comme ay wañ di ñàkk li nga xamante ne moom mooy seen bakken ay kàddoom nag mu dénk ko suñu nattangoo yi nga xamante ñoo nekk nekkee fële ci source a ca caaro yi la dem li nga xamante ni nag moom mooy liggéeyub ba daal di laal bu baax a baax ñi di askan bay yeewoo ca boobee diwaan loolee tax sax ba ñu mer ba di génn ci mbedd mi police daal a escorté nag ñu amal ab marche ñi di askan bay yeewoo fafee ca diwaanu caaro jamono jii li ñuy sàkk mooy ay passerelle yoo xamante ne dañ leen ko war a taxawal ngir ñu fay jaar yooyu fee nag am benn weer dong gannaaw ba ñu tàmbalee li nga xamante ne moom mooy liggéey train express régional boobu marche nag ñu amaloon ko ci samedi ba li ñu génn yooyu population nag di sàkku seeni ndàmpaay gannaaw bañ leen yëkkatee ci boobe bërëb ngir amal boobe projet. ca Mbàkke la ñuy dem brigade régionale bu jur daal di teg loxo lu tollu ci fukk ak benn kilo yu yamba yu toll ci fukki ak benn kilogramme yamba. mu nekk nag ay opération yu am solo yoo xamante ni ñu ngi ko amal fële ca diwaanu Mbàkke ci àjjuma bi ñu génn la ñu teg loxo boobee drogue ñii di policiers yi nag liggéey yu am solo yi nga xamante ne ñu ngi koy amal fële ca diwaanu Touba rawatina ca Mbàkke. ñii di askan bi di ko rafetlu bu baax a baax dealer bi nga xamante ne nag moom mooy yoroon boobee drogue daal dinañ koy teg loxo ngir déglu ko foofee nga xamante ne moom mooy ca brigade bu Mbàkke lépp loo xamante nag daal dina ruuse ci boobu enquête fas ki neen ñu ko dégtal ci biir leeral tv ak leeral point net ca daaru musti la dem benn waay rek dañ fa daal rendi tëral ko nag daal koy rendi comme ni ñuy def am xar mu doon wuyoo ki nga xamante ne nag moom mooy Basiru moo ko daal di faat Basiru nag ñu koy dàkkantalee Baspel ki nga xamante moom mooy Baspel dafa daal di piégé kii di Moustapha May Fall daal koy woo ñu jugee ci boobee terrain ñu doon footballé daal di koy yóbbu ci beneen bërëb génn li nga xamante ne moom mooy paakaam daal di koy rendi gannaaw ba mu amalee boobee jéye moom mi nga xamante ne moom mooy Bass Peul dafa daal dee daw jamono ji nag police ñu ngi koy wër askanu Daaru Musti nag di ñaawlu bu baax a baax boobee fee xibaaru bés bi ñu wax ci wàllum covid 19 di xam ne nag Sénégal téeméeri junni doomi aadama bu ñu leen jëlee juróom-ñaari médecin dong ñoo fi am ngir taxawu leen bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi nga xamante ne moom mooy USA Today fanweeri fan ci weeru septembre atum 2020 ba njiitu réew mi génnee daal di posté ci page bi nga xamante ne moom mooy Covid 19. ndax yooyu chiffre dëgg la ni ko journal bi nga xamante ne moom mooy USA Today daal di xamle du ñàkk suñu ay autorité dina ñu génn ngir leeral jëm ci moome mbir. OMS di kër gi nga xamante ne moom moo ëmb lépp lu jëm ci wàllu faj gi ci àdduna bi yëpp daal dinay fësal ay chiffres yoo xamante ne njort nañ ay vague la yu fëskee ne dalaat ci àdduna bi lu toll ci six mille six cent soixante et une personnes yoo xamante ne ay cas de contamination yu yees la ñu fëskee ne nemmee ko ci àdduna bi mu nekk ab record xamante ne nag gëj ko gis mbas mi.

wax ngeen wéy di suivre programme yu